Donc voilà, comme madame Ninga a fait constat, bon, comme, comme on est passé de, de l'ère analogique à l'ère numérique. moom léegi photo léegi maanaam léegi photo numérique la ñu def léegi pratiquement léegi indi na rek changement yu bëri nag si photographie quoi comme Ninga a ko aujourd'hui c'est la c'est la journée mondiale de la photographie xam nga photographie ñu ngi koy célébrer partout dans le monde xam nga waaw mooy tey tey mooy bisu photographie quoi xam nga kon numérique gi nag moom lu mu lu mu day apporter changement yi mooy que ni ak nouvelle technologie aussi tamit xam nga bon léegi pratiquement am na ñu bëri nga xam ne dañuy am appareil photo aussi tamit comme labo yi ni ñu doon doxee auparavant nga jël photo sa appareil dem labo ñu sottil la léegi bon la plupart du temps mi nga xamante ni léegi ñoom ak smartphone wala un téléphone ci le ñuy de ay photo quoi euh, bon il y a y a toujours amène toujours avenir pour pour la photographie mais le problème c'est que bon euh, c'est pas tellement organisé dañu nekk si benn secteur bi nga xamante bon nga c'est am nga dans c'est dans l'informel mais buñ ko gënee organisé aussi tamit photo bu na dellu fu fu mu nekkoon photo mu ngi passam ba léegi sax mais dafa laaj benn réorganisation xam nga parce que léegi ku jël ku jóg rek yor appareil am ne day tiir am na nga xamante ils sont sont des amateurs dans le métier am na nga xamante ne ils sont euh, des professionnels dans le métier xam nga def nañu ay formation def nañu attestation aussi tamit et tout donc ce sont des photographes professionnels comme je t'ai dit aussi am na ne bon dañ si dugg nii rek xam nga mais ce sont pas des professionnels mais nag bu ñu ñun ñëpp ñu réorganiser waat li euh, comment dirais métier bi avec aussi l'aide de l'état aussi tamit parce que état bi ñu si accompagné wu tamit moo xam naa du dem xam nga état bi tamit ñu organiser xam nga ce qui fait que les professionnels qui sont dans le métier, ñu ko leen organiser euh, bon xam naa peut-être euh, c'est pratique bon nga yor sa peut-être sa benn smartphone wala sa benn euh, téléphone bi nga xamante ne mën nga si am photo xam nga nga samse ni peut-être bon nga tayal dem studio pour photo wu ak sa smartphone nga photo wu si xam nga bon boo defee constat boobu nga xool comme par exemple auparavant comme studio yi ni ñu doon photo événement muy que ce soit la fête Korité ou Tabaski ni ñu doon photo it amee clientèle noonu maanaam wàññeeku na quoi wàññeeku na ko xam naa preuve en bon li studio ko voyé Depuis 1997 jusqu'à présent, jusqu'en 2019, donc ça fait presque plus de 22 ans que l'institut est là. Mais j'ai fait le constat que peut-être ces dernières années, avec le euh, téléphone et le smartphone, peut-être nous donnons des photos aussi événements, tant événements, nous avons expliqué le corridor, on va ndax euh, bon peut-être dina xaw a gàllankoor peut-être y a un manque à gagner par rapport à ce euh, auparavant xam nga mais bon c'est aussi bon du xool nu ñu koy mën a compenser rek peut-être def leneen xam nga am yeneen yeneen li nga xamante ne dañ ko mën a boole si ak photographie bi wala tamit euh, def création aussi des innovations xam nga nga xamante ne peut-être dina la a permettre aussi tamit clientèle li nga xamante tamit nga mën leen maintenir dama ko doon fréquenter parce que am nañ bu nekk fii studio Ibou Seck depuis bi ñu nekkee xale lu ñu musoon am ci xaalis dañ koy dem photo wuñ événement duñu yàkkamte lu dul ñaan déwénal ba dem photo wu ji mais léegi dañ ko yàq te boo seetloo foto yi nii sa téléphone boo photo woo tey suba mun ngaa perte téléphone bi te boo demoon tey jii nii ñu photo la yóbbu ko labo sa téléphone dootu ko mën a dootu ko mën a utiliser parce que da ngay jël foto boobu da nga koy denc loolu souvenir lay doon ci ñun te léegi loolu gisatuñ ko ñun tamit daf ñoo xaw a jaaxal te tamit nit ñi ñoo xaw a am benn complexe te léegi ba ngay gis nit bu nga xamante ni tey événement day am wala dara mu dem labo wala ngénte sax dañ naan waa lu lii kenn photootu

ñoom loolu nekkul loo xamante ni tey jii dinañ leen ko yéene wala ñu leen nekkul loo xamante ni ñun sabab lu luñ lañ ko daal mais tamit xam nga tubaab yi ñoo ñu yàq ci lépp looloo waral loolu am loolu moo tax mais ñun moom franchement loolu neexuñ waaw parce que boo duggee studio photo wu souvenir bi di nga ko téye da koy téye mun na am 2 ans ba trois ans da nga koy utiliser te boo ko xoolee sa xel nekk ni euh, tey jii ñu doon def ay studio di di photo amoon nañ fi solo amoon nañ fi sens. parce que bi ñu juddoo ba léegi da ngay gis tey ji nii ku gaañu da dem ci benn ci benn kër teg ñuy seetaan ay foto yu yàgg rek nga gis kooku koo xamante ni tey jii pendant des années kenn gisatu ko kenn déggatu ko mais photo boobu moo koy indiwaat. mooy waral nit ñi fàttalikuwaat ni ndeysaan xoola diw te léegi loolu gisatuñ ko parce que téléphone yi ni yaakaar tey jii nii téléphone bi tey boo ko amee léegi léegi mun ngaa génn léegi ñu sàcc ko. mun ngaa génn léegi nga perte ko mun ngaa génn léegi mu daanu écran bi dootoo ko soxla nga dem ñu ne la téléphone bi mënuñu ko defar waa léegi kon ana photo yooyu nga yoroon. léegi door am da ngay commencé waat à zéro amul sens non d'accord ma am na téléphone yoo xamante ni ay 1 giga lañ am na téléphone yoo xamante ay téléphone chinois lañ mënuñu benn foto wala ñaari photo ñu fees kon kooku mënul mënul remplacer studio nañ delluwaat studio di photo comme ni ñu doon foto woo gën leen suuxat ñu gën a mën a dundaat meññ parce que tey jii ku ci nekk ci li la dooleel mooy ci sa métier kon loolu noonu tey buñ ko buñ ko buñ ko kiyalee rek buñ ko màbbalee rek dootul doon loo xamante ni tey du la arrangé parce que ku ci nekk tey jii nii li nga yaakaar mooy sa métier kon buñ ko buñ ko daanelee rek du la neex man foofu laa ko gisee kon ñun ñëpp nañ demaat delluwaat dem fotowaat studio no si mën na nekk waa mën na nekk du yomb wala du yomb mooy nee naa la li ma ko wax dama ni la complexe daf ñu ci xaw a sonal parce que tey xew day am sax ñu naa lii amul woon laay lii ak a kenn gisatul lii moo tax léegi une deux trois ñu ne dañ lay photo wala dinaa la envoyé sa photo yi looloo ko daaneel tubaab bi daf ñuy nax rek ndax lii yëpp daf ñuy sonal